asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk dellu soon nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi nuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Dekko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci kàddu yi nga xam ne président daf ko yëkkati jëmale woon ko ci Euh, ñi nga xam ne ñooy journaliste yi ak ñi nga xam ne ñooy def revue de presse ngeen gis kàdd yi ci gën a jip te tontu lu jëm ci moom muy tontu Babacar Fall bi nekk ci RFM te ñëpp xam ko ci melowu mel nii euh, nit la koo xamante ni euh, jàpp nañ ne képp ko wax wax ju jëm ci moom walla lu jëm ci lu ko coiffé Euh, moom du ci def jàll du ci nëtër day génne li nekk ci moom li mu génne noonu la wala du noonu loolu moom ci moom lay dellu ak ñi koy déglu jàpp naa ne kàddoom yi ñu bare bare bég nañ ci ndax fi mu ko jëmale li tax ñu gë bég ci nag mooy fi côté bu mel nii rek lañ doon xool journaliste problème bu am mu wax ca la cay xalaatam ak lu ko ca mën a fekk rek ak lu mën di doon rek ndax ku nekk xam na ne fi mu delloo kàddu yi jëmale ko fi kooku mooy njiitu réew mi kon kàddu la yoo xamante ni jàpp naa war naa peese kàddu yi ni mu toll ak fi mu jëm donte kàddu yi jëm si ci ñoom it peese nañ ko ba xam fu toll waaye ànd ak loolu lépp li ci des nag arbitu askan wi la arbitu askan wi la lu mel nii rek lañ doon séentu ci ñoom ñu ni wax nañu ceeb bi yokk nañ ko diw gi ñu ngi koy kii ñu ngi jël seeni alal sàcc na nangam fële luubal nañ seen alal ñu ngi leen di bëgg a nax loolu lañ doon xaar ci presse bi kàddu yu mel noonu dafa mel ni moo tax kàddu yu mel ni saa bu jógee day daal di doon kàddu yu yoo xamante askan wi dañ koy eh, kiile xañ na tontu li sax boo gisee tontu na moom ba dugg ca biir famille ba dugg ca njaboot ga lañ ba ba wax ca sax loo xamante ni ne hôpital bale président tudde woon ko Macky gasama moo gënoon a yàlla ñu koy tuddee ay première ma Marème fay te loolu ku nekk xam na ne bu fekkoon ne conseil la dañuy wax ne lu baax la loo xamante ni ndax parce que ñaar dana ca feeñ mooy turu Macky sàll dana ca feeñ turu turandoom dana ca feeñ dëgg la bii tamit xañ na euh, dina ci feeñ soxnaat dina ci feeñ waaye la gën kii xañ na loolu ku nekk xam na ne di nga xam ne lii bu dee conseil la lu yàlla la bu dee nag euh, wax jeneen wax ju bokkut ak jooju loolu moom xañ na ñoom ñoo koy séq and ak lu mën a am rek kàddu yi kàddu la yoo xamante ni journaliste yi yu bari gis nañ seen bopp ndax boo xoolee wax ji fi mu toll da ngay yëg ne ku mel ni Pape Alé moomut ci wax ji dara ndax ñëpp xam nañ ne mi ngi nekk ci côté boo xamante ni côté peuple bi di liggéey liggéey boo xamante ni naka jekk yu mel nii daf koy wax. gis ngeen ne yu mel nii sax am na dossier yoo xamante ni da caa wax ne nangam ñu yóbbu ko ca kos ay yoon yoon kon te Pape man maa ngi koy jaalewaale waajuram wi nelaw di ñaan yàlla tàbbal ko àjjanay firdawsi Pape Alé ku dëggu la jàpp naa ne ba Macky Sall nekkee ci opposition bi bokk na ci ñi ko gënoon taxaw 31 décembre ñëpp taxaw wala 24 31 mu jël ko public ñëpp gisandoo ko mu doon loo xamante ni ku nekk xam na ni jéego la bu rëy ci campagne président Macky Sall euh, ànd ak loolu lépp. ñu xool Pape Alé mësunoo gis mu sensé virgule ci lim doon xeex mooy opposition bi wan mooy peuple bi lay xeexal moo tax maa ngi tiirelu bu baax attention waa Pastef wala ex Pastef ne ëllëg bu gisee Pape Alé wëlbatiku di eh, ñu gis ko muy waxee neneen wax ji di mel ne luy déranger eh, waa Pastef wala muy déranger waa opposition bi nanu yëg ne dëgg la dëgg rek la nekk maanaam moom défendrul Pastef défendrul kii mais dëgg lay défendre kon heure bu ñu demee ba gis ne loolu mi ngi position am nii la nan yëg ne ligne bi mu nekkoon rek ci la nekk ñii kay ñoo war a jubbantiku wala ñoo war a def ànd ak loole lépp wax na ci tuuti journaliste yi nag doo leen mën a classé ñoom ñëpp ci génn buum waaye di nga jaaxle nag ndax président nee na am na ñoo xam ci lanu jóge ba nekk maire ba nekk député. loolu jàpp naa ne bu ko waxee dinañ ci tudd Ahmed Aïdar Ahmed Aïdar sax assimilé ne wane ne mu wax ji moom bokk na ci ñi ko moom bu dee député yi tamit Pape Djibril Fall ku nekk xam na ne ci média bi la nekk ba ñëpp xam ko mu jaar ci nekk député euh, ku mel ni waaye loolu bu ko naa waxee dina war wax ne Abdou Latif Coulibaly ci loolu la jaar ba moom mu samp ko def ko député yaa xam mbay yaakaar naa ne ci loolu la jaar ba mu def ko li nga xam ne moo di moo jiite li li li nga xam ne moo di soleil te barki démb rek soleil def na fi garaawaale goo xam ne ku ko gën a rëy taxaw ne Amadou Ba am na ñeenti millions ay prêts loolu Mimi Touré yaakaar naa dafa am ne démentir na ko ba wax leen ne dina ci yóbbu ku mel ni Syll Souleymane yaakaar naa ne ko nekk xam na ne Diop ci loolu ci la jaar ba nekk ministre ku mel ni Cheikh Yérim Seck jàpp naa ko ku mel ni Madiambal Diagne ci xeet yooyu la nekk. bay bind livre ba ñoom ñi ñuy bind livre di ko jëmee ci président Macky Sall di ko tagg di ko def lépp kon jaar ci eh, def am ci dara dëgg la waaye nag responsabilité yi ci nekk ñu war a xam ne nit ñi ñoo leen def liñ doon ñoom buñ leen déglu watul dootuñu doon leen doon te gis nga ne ñàkk eh, déglu gi ñu leen ñàkk déglu ak lii ñu leen defal ñàkk déglu gi ak jaar ci kaw askan wi bay dund ci seen kaw moo politiciens yi ñoo yam ñoo yam ak ñoo yem ak te ñoom ñi ñëpp ku ci jaar fi ngay jëm a jaar mooy jaar ci pour dem nekk ab politicien mais benn journaliste boo xam da nga gis mu génne fa dem ne day dem nekk ci tool yi bay wala mu jaar ci nit ñi ba dem nekk ab beneen kii mais ci politique lay jaar di dund ci kanamu askan wi di kii te la euh, waaja doon wax ne kuy woddoo làmmiñ su noppee rafle wa daanaka loolu ci ñoom ci nit ñi leen ñuy dund ci nit ñi leen ñuy dund yu mel nii nag jàpp naa ne euh, lu yéeme yéeme la te lu naqaree réglé la waaye lu jar a réglé lay tamit ndax nit ñi nanu am seen fulla nit ñi nag ñu ngi koy dindi ndax boo xoolee site internet yi léegi ni ci nit ñi jëlee information jëlee tun ko ci télé jëlee tun ko ci rajo yi lu tax du rajo moo bonde du télé moo bonde mais ñi ca nekk di wax ñooñu la nit ñi di segg ak di gësëm ñooñu la nit ñi di segg ak di gësëm ak di vérifier buñ leen vérifier nag ba xam ne li li li nekk seeni objectif ak li nekk ci seen biir ñu xam man nag damay jaaxale lool ku mel ne Ahmed Aidara dëgg dëgg xaw na maa am tuuti benn laaj boo xam ne naa ko jëme askan Ahmed Aidara dafa nekkoon fii ci seen tiiw TV di fi def ay revue de presse ak di fi def lu nekk nit ñi apprécier ko di ko jàppale ko mu dem ba benn jamono mu xëy xëy génn nit ñëpp tegandoo seen bët li ko jëlee seen TV muy revue de presse bu mu bëgg def ñu kaleel ko ñoom ñi seen biir ñoo taxaw def benn suyee rôle boo xamante ni daa dikk naa na dikk gaa yi ne cell daal di effacé télé ba jël dugalaat leneen loolu tey ñëpp mer mu xëy ne day ubbi benn sit internet sénégalais yi mosuma gis ñu abonné benn site neen abonné situ Ahmed Aidara ñëpp solidarité di ko di ko abonné tey jii ñu mën a xëyaat gis ko mu toogaat ci télé bi même télé boobu même heure yooyu toogaat dinu dinu diñu expliquer wala dinu nu xaa wala di jox information wala dinu defal dara vraiment da nga xam lii lan dëgg dëgg dëgg moom daal euh, sërifam nee na sërif la dëgg dëgg sërif daal ñu ngi lay laaj loolu comme yow nee nga sërif nga sërif ñu ngi lay laaj lii daal vraiment lum lum doon nit ñi daal ni la xeexaloon ba perte ci ba ku ci nekk wax ci ba géex ba ne kaaw tey nga mën a dikkaat ne da ngay toogaat même fan la doon defe lii te isp joxo Sénégalais explication waxoo leen dara dangaa xëy rek dem toogaat te tey ñoom lii ñuy def gis naa bin Ousmane Sonko jàppale ba nekk député bi ñu demee leen njëkk a def ci acte yi njëkk a posé mooy taxaw ne ñoom dañuy nekk dañuy nekk dañuy nekk euh, jiite assemblée Ahmed Aïdara mën naa jiite assemblée beneen bi ci def desaat ay dara moom ci boppam moo toogal boppam wax ne wax ne. bi may def revue de presse nekk fële président Macky Sall dana ma lu tax nga fi jóge te boobu élection yi jóg ndax boo defee nii suñu affaire du baax mu ne ko su ma delluwaatee mu baax te même Macky Sall nee na am na ay xarit ci gaay waaye lii moom sëñ bi sénégalais yi nii rek la ñuy àndeek ñoom di leen nax rek di dem di yéeg nit ñoo xamante ni sëñ bi dëgg-dëgg euh, du ci seenam njàng du moom sax nee na wax na ko nee na ko Ahmed ay dara na moom moo ko nettaliwaat rek nee na Macky Sall dana ko Ahmed li tax nit ñi di la déglu du xam-xam bu bari ëppoo fi nit ñi jàng ëppoo li nga fóoti ci peuple bi ndax ba léegi jot ni léegi amet ci poopul bi la foo féete wala ci poosam la féete ci peuple bi féete wala ci poosam la féete wala ci intérêt am la féete wala ci intérêt askan dëgg-dëgg yi ay laaj la yoo xamante ni bu ci mënee tontu na ci tontu ku ko ci mën a tontul tamit ni ngay tontu doon lu doon lu lu vérité d'accord nan nga tontul noonu ñu déglu la.